الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن الكلام عن المهدي عليه السلام في تلك الأيام أصبح موضوع الساعة بين أكثر الناس ولعل السبب في ذلك أكثر الناس الآن يعانون أشد المعاناة من تلك الحياة المادية الجامدة بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi dafa jaadu ci ñun ci waxtu yi nu toll leeral benn tomb boo xam ne coow da cee bari mooy mbirum mahdi al mahdi al muntazar lu bari ci ay jullit sànk nañ leen te ñi leen sànq mooy ay nit yuy wootewu ne ñoom ñooy mahdi feeñ nañ ci jamono wala ay wootekat yu bari yu feeñ ci sunu waxtu di wax ne ñoom ay yonent lan coow li bari lool jullit yu bari sànq lu wax lu tax mooy noppi boroom xam-xam yi ci tomb boobu ak réeru jullit yi seen ñàkk a jàng ak seen ñàkk a xam ak ñemek yàlla ak yenn doomu aadama yuy wootewu ne ñoom ñooy mahdi kon dana jaadu mbokk yi ñu leeral ay tomb bu ci njëkk mooy manil mahdi kan mooy mahdi ñaareel mooy masmu lan mooy turam moom almahdi ñetteel mooy wama sifaatuhu lan mooy melokaanam ñeenteel mooy mal hikma min kawnihi min nasali alxasan radiyallahu anhu wa ardaah lan mooy hikma bi tax moom almahdi mu bokk ci geño yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk ci waa kër yonent bi nekk doomu xasan wala sëtam loolu tamit tomb boobu war nañ ko leeral waaye war nañoo leeral mooy muddatu hukmihi moom ñaata diir lay atte julliti beneen tomb bi mooy min ayna yaxrujul mahdi Mah- mahdi fan lay feeñee tomb yi ñu wax bi iznillahi tabaraka wa taala su fekkee ne leer na ci ab jullit kon dootoo oyof nib xob fu la ngelaw fekk yóbbu la xam ngeen xobu garab wala këyit su nekkee ci mbedd ngelaw fu mu ko fekk rek yóbbu ko loolu mooy nit koo xam ne jullit boo xam ne islam bi muy dund dara leerul ci moom moom daal ab xob la boo xam ne fu ngelaw li jóge rek yóbbu ko ca beneen wàll bi mooy ku woote mu wuyu ji fekk am na woote yoo xam ne ku ci wuyu ji ku ci dem yonent bi nee na yaag ñooñu yéen a yem ëllëg yowmal xiyaam bu la yàlla di dekkil ci ñooñu la lay dekkil te ñooñu bu fekkee seeni pas-pas wérut la ñu nekk kufru la soo moytul nga ànd ak ñoom dugg ci biir kàmbu jahannama mbokk yi kan mooy mahdi qaala jumhuru ahlu sunna innahu min ahli bayti nabi ahlu sunna nee nañ al imaamu al mahdi al muntazar pour ñu xam moom mooy kan moo nee na leer ci ab jullit innahu min ahli bayti nabi moom day ci waa kër yonent bi lay bokk ci ala bayti rasul sallallahu alayhi wa sallam kon loolu leer na min waladi hasan ibnu ali al imam ali radiallahu anhu wa arda moo denc soxna suñ naan fatima fatima kan mooy woy juróom muhammad kan mooy yaayam khadija fatima bi ko ali dencee ñu am ay doom kenn ki tudd al hasan kenn ki tudd al husayn al hasan moomu ci al imaamul mahdi ci al hasan moomu lay génnee léegi nag bu fekkoon ne danoo yemal fii xutba bi rek kon sunu mahdi yi ci Dakar ak Sénégal ñoom hal min ali bayti rasul hal min waladi husayn aw hasan fun bokk ndax ñoom Huseyn mooy seen papa wala Hasan est ce que ñoom min ali bayti rasul mu ne moom al imaamul mahdi yaxruju fi axiri zaman wa qad imtalat al ardu zulman wa jawran dana feeñ ci mujjantalu jamono buñ demee ba àddina di waaj a jeex jamono joo xam ne kaw suuf lépp tooñ moo fi nekk ak yàquteeg caay-caay ak mbon lool moo fi nekk moom almahdi mu daa di feeñ fa yamla'uha qistan wa adlan mu daa di feesal kaw suuf maandute mu daa di feesal kaw suuf njub waaye bala muy ñëw jàppal ñaar foog mu nekk fii axiri zaman bu demee ba àddina di waaj a jeex ñi jàng diine gis nañu yonent alayhi salaatu wasalaam bi muy wax mandarga yi wane ne àdduna ngi jeex daf ko def ñaari mandarga alaamatu saa as sugra ak alaamatul kubra mandarga yu mag ak mandarga yu ndaw yu ndaw yi ci la ñu toll nii daanaka genn wàll gi jeex na mu des yu mag yi yu mag yooyu mahdi ci la bokk kon axiru zaman lay ñëw balaa muy ñëw day fekk kaw suuf yàqu mu ñëw feesal ko maandu teeg njub mu ne lii ma la wax wa haada huwa alqawlu saxiix lii mooy wax ju wér allazi tasxadu lahu alxadis lii mooy wax ju wér yoo xam ne xadis yëpp yonent bi wax lii lañu wax hadis yoo xam ne ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la bàyyi ko wa aqarrahu kitaabul muhaddisiin nee na téere yi bind hadis al imam Bukhari muslim Abu Dawud Tirmidi Nisaayi Ibnu Maaja nee na soo demee foofu da nga fa fekk hadis yi wal xufaaz ñi mokkal hadis yi mu ne hadis yi lan génne wal muhaqiqiin ñiy càmbar xadiis yi di ko dëggal ak di ko ñàkk a wéral ñoom ñëpp lii lañu ànd wax ne depuis jamono bu njëkk fi l qadimi wal hadis depuis démb jamono bu yàgg ba fii nu toog boroom xam-xam yi lii la ñuy wax ci imaamul mahdi mbokk yi inna al mahdi al mubasharu bi laa yud'a nubuwa tey ci jamono fan yi ñu paase rek dégg ngeen ci Sénégal ay woote mahdi nangam yonent nangam kaaba gi fii ndoxum zamzam ay caaxaan yoo xam ne ma anzala allahu biha min sultaan wallahi amul dalil amul fenn fu ñu ko teg lu dul ci réer ak ñàkk a jàng bu njëkk mooy ab julit na yëg ne inna al mahdiya al muntazar mahdi moomu ñuy dégg di ko xaar moom day laa yudaa bi nubuwa musul woote ne man yonent laa lu tax parce que ginnaaw yonent laa nabiya baadahu ginnaaw yonent yonent du am alquran moo ko wax ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul allah wa xaatama annabiyin yàlla nee na yëg leen ne yonent du bàyyi kenn yonent ndawal yàlla la subhanahu wa taala bu yàlla tànn yónni ko ci yéen waaye moo tëj buntug yonent gi kon keneen du ñëw ginnaaw yonent soo ne ah yéen li ngeen def erreur bu rëy la parce que da ngeen di weddi ne yonent du am ginnaaw yonent ñun waxuñu ne ginnaaw yonent yonent moo ñëw ñun waxuñu loolu déedéet dañu ne yonent bi moom moo xonqoon fële moom moo zone fii loolu lan wax dafa xeesoon fële waaye bi mu ñëwee Sénégal nag comme dañoo ñuul mu ñuul ñun loolu lan wax waxuñu dafa waxuñu keneen la de to loolu ban hadis moo ko wax ban hadis la ñu yonent bi wax ban aaya alquran keroog bi gaa yi di xëccoo naan yonent bee jur diw yonent bee jur diw alquran wàcc maa kaana muhammad aba ahad keroog ba gaa yi di xëccoo am sahaaba bu ne bu yonent bi deewee day ay salaay takk ñu tere leen ko yàlla ne leen wa azwajuhu ummahatukum ay soxnaam seeni ndey lañ ñoom ñooy ummahatul muminin kenn du leen denc gis nga saa ñu waxee alquran ñëw léegi hadis ñëw lan moo nuy wane ne yonente alayhi salatu wasalaam dund na ñaari dund ci alquran 114 saar yi fatiha banaas lan mooy ñu wane ne yonente dund na ñaari dund yonente ñëw na afrique ana ana ana aaya bi ana hadis bi nañu yëg ne mahdi al mubashar moom day laa yudu'a nubuwa moom day wootewul ne moom yonant la bal huwa min ittiba'i nabi waaye moom dafa bokk ci ñi topp yonent alayhi salatu wasalaam lu tax ndax sëtu yonent bi alayhi salatu wasalaam la wa ma huwa illa xalifatu rashid al mahdi moom mahdi nekkul lu dul dafa bokk ci ñi wuutu yonent bi te jubal te ñëpp jàng ngeen te siira ñu ne dafa am xulafaau rachidin mahdi ci la bokk luy dalilu mahdi ci la bokk ci xulafaau rachidin yonent bi moo ko wax alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin lu ci tegu almahdiyin baat baa ngoog mooy baatu mahdi mooy ñi ma wuutu jub tey jubal suñ leen fi fekkee na ngeen ànd ak ñooñu lépp luñ leen wax jëf leen sama sunna mooy seen sunna alaykum bi sunnati yéen jullit yi jël leen sama sunna sunna bi mooy lan mooy sama yoon sama doxalin wa sunnati alxulafa ak sunnaay ñi ma wuutu arrachidin jub al mahdiyin tey jubal baatu mahdi ngoog boobu la jógee kon al imaamul mahdi al muntazar dafa bokk ci ñi war a wuutu yonent alayhi salaatu wasalaam jub tey jubal ni ko Aboubacar wuutee ni ko Ousmane wuutoo ni ko Omar wuutoo ni ko Ali wuutoo ni ko ñeneen ak ñeneen ñu ñuy lim di leen yégal ci xulafa ar rachidin al imaamul mahdi ci la bokk mu ne min jumlati alxulafa alladina qaala fihim rasul fa alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafa arrachidin almahdiyin mu ne wa huwa inda ahli sunna waljamaa basharum min albashar mbooleem waa ahlu sunna ñoom ñëpp bu ñuy wax kan mooy mahdi lan la ñu wax waxuñu ab malaaka la bu yàlla di wàccawaat waxuñu la ab jinne la bu yàlla di wàccawaat waxuñu day wàcc ci géej gi waxuñu day naaw ci jaww ji dañ ñu ne innahu basar moom mbindeef la dafa juddu comme ni nit ñi di juddoo mu am baay am ndey mel ni nit ni mel innahu basar laysa bi nabi wala maasum mbindeef la du yonent nekkul sax nag ku ñu aar comme ni ñu aaree yonent parce que yonent yi yàlla moo leen aar duñ def bakkaar maasumin moom nag laysa bi maasum al imaamul mahdi mu ne wa ma huwa illa rajulun min ahli bayti rasul moom nekkul lu dul kenn ci waa kër yonent alayhi salaatu wasalaam ci waa kër ala bayt mu ne dana nekk buur yàlla dina ko fal waaye mu nekk buur bu maandu aadil yamlaul ard adolan kama muli at jawran bis bu yàlla defee mu feeñ ci waxtu woowu di jot di axiru zaman nga xam ne day bokk ak isa jamono ñu rey dajjal ñoom ñaar da ngeen di fekk mu nekk koo xam ne kuy feesal kaw suuf maandu te la comme tey suuf ni mu feesee ak yàqute ak mbon mu ne kañ lay génn yaxruju fi waqtin takunu l umma ahwaj ma takunu ilayhi allahu akbar suñ demee ba njub jeex ci kaw suuf yàqute am comme ni mu commencé woote yi bari caaxaan yi bari ñii naan ñoom ñooy yàlla kii naan maa yonent bi kii naan biig fanaan naag moom kii naan man kër yàlla laa yendu comme tey nu mu amee chaque jour nga gis ci rajo wala ci télé wala ci mbedd mi ay woote yu dul jeex waaw ay woote yu dul jeex bis bu nekk nit ñaa ngi woote mbooloo yaa ngi bëri jullit ñaa ngi sànku di alku réeral doomu jullit yi mbokk yi ismuhu wa sifatuhu moom almahdi lan mooy turam ak lan mooy melokaanam ñëw na ci hadis ibnu mas'ud radiyallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaal law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun latawwala allahu dhalika al-yawm hatta yab'ath fihi rajulan minni rajulan minni ibnu mas'ud nee na yonent bi nee na bu dara desul woon lu dul ci àdduna lu dul benn bis mun dundoon àdduna ba ñu ne tey mooy dernier jour su àdduna bi jeexee yowmal xiyaam taxaw na yàlla dina guddal bis boobu la tawala allah haada al yawm yàlla dina guddal bis boobu hatta yab'as fihim rajulan minni yàlla dina guddal bis bi ba mu indil ñu benn waay boo xam ne moom yàlla subhaanahu wa taala moo koy wàcce ci ñun waaye fan lay bokk yonent bi nee na rajulan minni minni ay min aala bayti benn waay la ci man lay génne ci sama waa kër lay bokk aw min ahli bayti ci beneen beneen riwaaya wala mu bokk ci sama waa kër yonent bi bu yemoon fii rek doy na kon képp ku ñuy waxati ne yow mahdi nga ñu xool la ndax yow dalaa bokk ci waa kër yonent bi loo bokk ak yonent bi acca Sénégal nag moom ñoo fi dàqat askan askan ñoo fi dàqat taggaate da ngay gis benn waay bu jàpp nit di ko tagg yow sa baay nangam sa maam mooy kii ba eggal ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam nag foofu nag mooy terminus bi nag waaye ñu indil ñu kooku nag bu boobaa na waa ji taxaw rek fas yéene jël waa ju sant Sow wala Saar wala Caam tagg ko rek ba eggal ko ci yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu la ñuy xaar nag yonent bi nee na yutawaataw ismuhu ismi moom imaamul mahdi turam mooy nekk sama tur di ma tudd lay tudd wasmu abihi ismu abi turu baayam mooy sama turu baay man yonent kon bu yonent bu yonent bi woon fi doy na imaamul mahdi kon nu muy tudd ahmad wala muhammad papaam nu muy tudd abdallah aywa seen mahdi yi seen papa nu mu tudd ñoom nan lan tudd wala au lieu que seen mahdi yi sunu mahdi yi am nan lan tudd yonent dafa wax lu leer li tax jullit yi sànku alku mooy ñàkk topp alquran ak sunna waaye ñun ñëpp bu ñu tegoon alquran sunu loxo ndeyjoor ñu teg sunna sunu loxo càmmoñ billahi allazi la ilaha illa huwa duñu alku duñu sànku ndax yonent bi moo ko wax taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi kitab allah wa sunnati rasul bàyyi naa ci yéen ñaar feeg yeneen ci ngoy baatu mooy la yonent bi wax mooy mooy lan mooy nga jàpp jàpp bu dëgër ma in tamassaktum lan tadillu baadi feeg yeneen ki jàpp du ngeen réer kon lan moo tax ñu réer tey ba ku nañu maay sàmba ñu ne ko waaw ku woote ñu wuyu mooy dañoo bàyyi li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax kon yonent bi nee na mahdi dana feeñ maa ngi moom ñooy bokk tur sama baay ak baayam ñooy bokk tur mu ne yamla ul ardo qistan wa adlan kama muli at zulman wa jawran moom bu ñëwee dana fekk ñu feesal suuf lépp lëndëm ak yàqute waaye bi iznillah moom dana dindi loolu daal di fi def maandute ak njub ixwat al iman aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله أما عن صفته الواردة فهو أجل الجبهة أقنى الأنف روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك سبع سنين وخنا كان موي مهدي وخنا لان موي تورم وخنا لان موي تور واي جورم موي بايام وخنا فان لا بوك لي دس mooy ñu wax lan mooy melokaanam melokaanu mahdi mooy yonent bi muy wane ci jëmmam ne noonu lay mel jëbi dafa tàcc yaatu leer nañ bakkan bi gudd yonent alayhi salaatu wasalaam ne mu am sakkara yàlla mu ne almahdi yu min nii mahdi ci man la bokk loolu mooy ci sama waa kër la kon ngalawaay bu ngeen déggatee kuy woote Mahdi wax leen ko kaa ñu seet yow yaay kan nañu indi say géwél ñu wër la ñu tagg la ñu xool ndax di nga yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi di li mu wax mooy al mahdiyu minni mu ne ajlal jabha borom jëbu yaatu la leer ba koo gis du du làcce day xam ne kii mooy waaj ndax melokaan bi yàlla def ci moom mu ne aqnal an bakkan bi dafa gudd sew mu ne yamlaul ardu qistan dana feesal kaw suuf maandute wa adlan ak njub kama muli at zulman wa jawra comme ni aduna feesee caaxaan ak jengte mal xikma min kawnihi min nasalil xasan lan mooy hikma lan mooy secret bi tax al imaamul mahdi bokk ci fami xasan te ali du xasan rek la jur am na xuseyn am na ñeneen am na ñeneen waaye lan moo tax al imaamul mahdi nekk doomu xasan xam ngeen ne al imaamu xasan radiallahu anhu mas na wuutu yonent bi bokk na ci xulafaa rachidin ginnaaw ba baayam dee faatoo muy ali seydina ali bi mu faatoo moom al imam hasan toog na ci xilaafa gi ci iraq ak hijaz wuutu baayam waaye dafa yàggul juróom benn weer kese la sittata assur mu daal di wàcc lu tax ndax jamono yooyu muawiya ibnu abi sufyan ma nga ca saam ak li ko wër di wootewu moom it ne moom day wuutu yonent bi al imam hasan xam ne su continuer ci jal bi toog muawiya continuer toog julli ñi danañ daje bu ñu dajee danañ xeex bu ñu xeexee danañ reyante al imam Hassan woo ñëpp bañ ñëw mu ne man wàcce naa sama bopp bañ naa deret tuuru wàcce naa sama bopp te xam ngeen ne moo moo moom moo yeyoon ci place boobu waaye bañ julli di reent allahu akbar gis ngeen loolu mooy loolu mooy diine te loolu moo dal sunu association islamique yi ruq bu nekk benn waaye nekk ba nekk fa amir kër gu nekk am ku fa nekk am nekk amir mbooloo yu bari lool kenn mënuñoo compter lu ko waral parce que am na ñoo xam dañoo bañ a wàcc imam Hassan moom dafa wàccoon juróom benn weer la toog daa di wàcce boppam ñu ne ko lu tax mu ne damay bañ jullit dee jullit ñi reyante deret tuuru ndax lan ndax man mii maay tax loolu mu wàccoon ngir bañ deret tuuru ngir lan li yajmaa kalimatil muslimin ngir dajale kaddu jullit ñi ala hakimin waahid ci benn buur loolu imam Hassan defoon ak bañ deret gu tasaaroo loolu la ko yàlla fay tànn ci ay doomam ci sëtam koo xam ne balaa àdduna jeex dina ñëw toog moom imam Hassan la mu waroon toog kooku toog ko kooku mooy imaamul mahdi ñii di woote mahdi léegi sax xamuñu mbir yooyu yam dañoo xëy rek ne ñun ñooy mahdi waaw ñun ñoo pousse montagne yi toog dal nañu yàlla jubal muddatu hukmihi moom imaamul mahdi lan mooy diir yi muy def ci kaw suuf ñaataat lay atte jullit ñi mu ne wa fi axiri zaman yaxruju rajulun min ahli bayt yuayidu allahu bihi diin yamliku sabaa sinin yamlau l ard adlan kama muliat jawran wa zulman yonent bi nee na bu ñu demee ba àddina di waaj a jeex benn waay ci sama waa kër dana feeñ yàlla dina ko dimbali mu daal di taxawal diine ji allahu akbar ndax yàlla mooy kattanal te yàlla dina ko kattanal dana feeñ ci jamono yàlla kattanal ko mu dëgëral diine sampat diine ba diine delluwaat place am ñu ko waa loolu ñaata at la mu ne sabaa sinin juróom-ñaari at alimaamu mahdi dina fi toog juróom-ñaari at yoo xam ne day feesal kaw suuf maandute dindi fi jeng ak caay-caay ak mbon ak lëndëm mu ne tanamul umma fi ahdihi ni'ma lam tanimha qat jamono boobu ku ko yàlla def nga fekke ko ñu ne dinga fi fekk xéewal goo xam ne jullit yi mosu ñoo xéewlu xéewlu gu mel noonu dinañ fi fekk teraanga bu ko yàlla di may ak bànneex bu yàlla di def ci kaw suuf boo xam ne jullit yi mosu ñoo dund lu mel noonu mbokk jullit yi mu ne tuxrijul ard nabaataha suuf si dana génnee bu tawee suuf si dana génn lépp luñ ci musa bay wa tumtiru sama asamaan dana taw jamono jooju kenn dootu wax maral ndax asamaan dina wàcce ndox mu mu musa denc mu ne wa yu'tal maal bi gayri adad da ngay gis sax ku ñuy jox alal kenn dootu la limal da ngay ñëw rek ñu ne la tibbal kenn dootu la wax nangam lañ lay jox da ngay ñëw rek tibb su jamono boobu noonu lay mel ndax jamonoom jamono taraanga la bu yàlla di fay jullit yi tomb bu mujj bi mbokk yi min ayna yaxruju almahdi waaw mahdi moom fan lay génne croisement jam ñaajo wala Thiès lay génne wala Fass Mbaaw wala Géejawaay lay génne mu ne war raaji anna xuruju almahdi yakunu min qibali almashriq li wér te borom xam-xam yi wax ko hadis yi wax ko almahdi buy génn mu ngay génn ci penku jant ba ci jant bi di sowe génnee ci jant bi di génnee fala imaamul mahdi di génnee allahu akbar ci hadis boo xam ne sawbaan moo ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yaqtatilu inda kanzikum salaasa kulluhum ibnu xalifa yonent bi nee na bu ñu demee ba àddina waajo jeex dina am ñetti buur ñetti buur yoo xam ne bi ñuy reyante ñoo ngi reyante ci wetu kaaba gi ku nekk naan maa fii toog ku nekk naan maay maa man maay gouverner wala ku nekk naan alal ji ci kaaba gi ñu dencoon ko fi maa ci yay maa koy jël nee na ci jamono boobu ñuy reyante su ma laa yasiiru illa waahid minhum alal jooju wala nguur googu kenn du ko mujjee ci ñoom ñett lu dul kenn suma tatlu raayatu suud ñu jekki-jekki rek ñu gis ay mbooloo jullit yu génn yor drapeau bu ñuul min qibalil mashriq ci penku ba mu ne ñooñu ànd di xeex ak imaamul mahdi ñooñu la imaamul mahdi àndal ñooñu ñooy jaayanteeg moom te ba ñuy jaayanteeg moom dafa bañ ñu fekk ko mu toog mi ngi kaalawoo ni yonent bi daan kaalawoo sol burdu bi daal di toog tegale tànk yi ci jëbu weex ba ak ci bakkan ba ñu ñëw ne ko jógal jaayante ak ñun yow imaam ñu jaayante ak yow pour feesalaat kaw suuf njub ak maanute mu lànk ñu ne ko yaay mahdi jógal ndeysaan moo tax nit ñu baax ñi chaque jour ci njiit dañuy bañ lu dul nit ñu forcé leen ñu doog a nangu waaye xëy rek lekk sa ceeb ba suuf rek ba suur wala naan sa ataaya wala lekk sa cere nguum rek xëy ne man maay sàngam maay yàlla gis naa yàlla démb maa ngi moom ñoo nekkandoo woon caaxaan yooyu nga xam ne tey fa la ñu sànkee doomu jullit yi loolu la ñu islam di tere l'islam ay texte la chaque jour da ngay dégg alquran ne qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin bu fekkee li ngay wax dëgg na indi dalil waay waay ab julit na muus ab julit na yeewu ab julit na am xel am ab julit na yëg ne kaw suuf képp kum fi mën a topp ku dul yàlla ku dul yonent da ngaa jàdd ñaar rek lañ la toppandoo lañ la toppaloo atiu llah wa atiu rasul jeex na amul keneen te kooku lañ lay laaj yowmal qiyaam kon soo fi toppee leneen ba sanku ba alku ndax ay lekk ak ndax ay caaxaan semaine bi passé dama dugg rajo kenn nettaliwu ma ko ma dégg benn jigéen di wax ci rajo bi naan wallahi alazim ndox mi ndoxum zam-zam la bu aj jotee sax day aji bu aj bi jeexee mu ñëwaat toog ak yeneen yoo xam ne yéen a ma ko gën a dégg yonent alayhi salaatu wasalaam li teg si nangu wér yonent màkka la juddoo bi mu amee ñeen fukki at la ko yàlla yónni mu dem Médine gàddaay def fa juróom benn fukki at ak ñett daal di faatu ñu daal di koy suul ci néegu yaay Aïcha ku ñu suul nu muy sillee koo di ñëw di ñëw Sénégal li Yunus naan bi muy dem dañ koo yóbbu bi ñu demee dañ koo suul bi muy ñëwaat fu mu jëlee yére yu mu sol kan moo takkaat sëy bi loolu jar na bàyyi xel yonent lu muy ñëw def Sénégal ci jamonoom ñuy rey waa këram ala bayt rasul ba yowmul karbala jàng ngeen ko lu tax jógul régler loolu fekkee mun na ñëw Sénégal kay munoon naa jóg régler loolu dañoo posone Xasan bi ma leen di wax léegi dañoo rey Ousseynou dagg bopp bi loolu la sax nga dégg yenn paa yi naan football dafa araam ndax bopp Ousseynou la waaye du loolu kon dalil yi dafa leer ne imaamul mahdi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci moom lay bokk ci waa këram lay bokk wax na leen turam wax na leen tur baayam wax leen fu muy feeñ wax leen melokaanam leneen lu fi des nag mooy ku ko topp yow yaa nar a ànk yaa nar a sànk sa bopp allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaai وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله